damay jiital ay kàddu rek euh, jëkk euh, sëñ xabaan mi nga xam ne moom lañ dénk loolu moo doon koo jottali nañ ko war a waaye euh, tolluwaay bi noonu sax am waruñoo am tolluwaay waxtu wu nekk dama war di gën di dellu ci sunu borom kon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 kon euh, sëñ xabaar noonu rek la euh, ñu ñëpp teewlu kenn ku ne ci noonu rek euh, delloo boppam moom ci yàlla arab ya mu jàng mu fas ca yàlla may nu defal nu jàmm ci xol yi defal nu ci xel yi defal nu jàmm ci réew mi hmm. loolu moom lañ ñaan nawet bi itam jege na gën ñaan suñu borom gàttal nu ci ak xéew xéew xéewalu xéewalu xéewalu xéew xéewal gu rëy ci biir nawet bi eh, moo koy ñaan bu baax a baax a baax te loolu lépp itam nu gën a sant yàlla te lépp ci suñu lépp rek gën a gën a rafet njort gën a daal daal suñu xel nekk ci li war a nekk rek loolu bu ñu ko defee rek eh, li ñu bëgg daan ko am daan ci am daan ñu ci tegal lu koy suñu njort ndax loolu rek addu yooyu rek Euh, laa doon jiital nanu góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax nanu góorgóorlu bu baax ci dalal suñu bopp góorgóorlu bu baax dalal suñu bopp sant yàlla bu baax a baax a baax a baax euh, dalal suñu xel te gën a rafet njort loolu rek boobu mooy mooy ndigal li góorgóorlu bu baax li li ñuy war a def nag di ko defal mbooloo mi euh, mbooloo mi kon loolu moom daañ daañ daañ ko fàggu ay benn yoo xam ne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 murid yëpp ñu ngi sant ak lislaam bépp ak jullit yëpp ni mu ko waxee rek ñun ñëpp rek kon nañ daal di laxasaayu te sellal liggéey bi daanañ naka jekk daanañ mi njàng daa bokk ci njàng mu njëkk ma ndax njàng mi moom moo ko taamal boppam te da cee tabbal yu bare bari yoo xam ne buñ ko buñ ko sellalee rek lim nu bëggal ñun ñëpp nañ ko am yàlla na ko fi yàlla yàggal te yàggal fi njabootam ya njabootu lislaam gépp mu ngi laabiir itam bokki lislaam yi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 te du du orma barab bi ak ca teewaay moo tax bi mu waxee rek ñun ñëpp dugg nañ ci biir ñoo ngi sant bu baax. mu ni alxames ji gannaaw suba ji euh, la la doon njàng sellal njàng te te séentu ci suñu aaju yu fajo séentu fasaal tam ak yàggam fi ndax mooy mooy mooy suñu amaana mooy tax liñ bëgg lépp ñu ko waaw kay